saa bu jàmm nga xam ne ne li mu nekk du noonu saa su bu fekkee ne man si daa génn ci saa si bu dee nag am na tënk-tënk yoo xam ne faaw mu topp boobu jeex danañ ko jéggal mu topp tënk-tënk yooyu waaye daal saa boo xam ne lii baaxul moom nu mu gën a gaawee ci nu mu commandé rek da caa war a ak mooy yàlla moom kenn du ci nekk yëg ne yaa ngi ci nga mën caa génn te génn loolu jaadu ci am Buchari xam nga ay jullit dañ leen sant ñu dund seen diine ci wet leen ci seen i ci seen dëgg seen borom seen dëgg seen borom yàlla jëflante ci wàllu alal nag ci la bokk da ci am lu ci yàlla bëgg am lu ci tànn kon fexe ba ñëpp ñi di dund ni yàlla bëggee moom warteef la ci ñëpp maanaam ñëpp ñu man war nañoo dox ci ginnaaw da aajo daa jëm ci ay banque ñu gis ne banque yu bari yu fi nekk ci riba lay jël bu fekkee ne banque bu ñu yóbbu ci riba mën naa am warteef la ci mu am ndax ñu mën a sàmm seen jëflante ba ni ñuy wuti alal dagal ndax alal lu lewul lu mat a moytu sëriñ ne képp lu lekk lu lewul da ngay mooy yàlla man akalal xaraama asallaha xabba am kari waaye booy lekk lu lew faaw wa man akalal am kari kon nag fexe ba li ñuy lekk lew bu fekkee ne jëflanteeg banque mën na ñàkk te mën nañoo am bu tegu ci yoon boobaa nag wut bu tegu ci yoon war fii moom ci compte waaw xam nga dañuy wax de bu fekkee ne nit ki amul fenn fu mu denc ci alal ak suñu banque su denc mu sànq. kooku bu jëflanteeg banque de seet la gën a war bu fekkee ne compte boo xam dañ koy denc nga xam ne ñoom waa banque bu dañ ciy liggéey di la ca tegal ay intérêt bu baa yow ñàkk fexe moo la ci dugal waaye nag intérêt bu ko jël waaye nag bu ko bàyyi ci banque maanaam bu ko lekk waaye bu ko bàyyi ci banque dañuy wax ne saa bu intérêt bu génne jël ko nga joxe ko ci almaslax la am sañ ñu ko yóbbu foo xam daal njëriñam waroon waaye doo ko lekk te boo ko fa yóbbu it doo ci yéene maye doo ci yéene saraxe doo ci yéene addiye ndax moomoo ko da nga bëgg rek mucc ci àll bi leen bu ko bàyyee bàkk ba it ndax boo leen ko bàyyee yaa ngi leen di dimbale moo tax ku am compte ñuy wax compte épargne intérêt yi ci banque ba teg da nga ko war a génne waaye boobu génne bu ko lekk bu ko sa njaboot la joxe ko ci koo xam ne mbooloo mi nga leen war a ñaar yëpp jël du sant ne jàng alquran ndax alquranul karim jàng baat yi jaamu yàlla nu mu mën a fexe ba man ko rek loolu jaamu yàlla donte xamutul jàng waaye dégg li muy wax warteef la ci dégg kon bu fekkee ne ci weneen làkk la ko mën a dégg mën na ko ci jàng dégg maanaam waaye nag nay jàng yaxub arab bi ngir jaamu yàlla rek la war a kii mu bu ñu na ndax bu ñu jullee am na ne ñàkk xam nga dañuy wax ne juma dafa am ay charte bu xasee taxaw bu ajuma dikkee charte yooyu bu ci benn manqué duñ julli ajuma waroon dëkk boo xam ne xëy na nit ñi dañoo xëy tukki bala ko des motul fukki nit ak ñaar su boobaa julli ajuma dañuy julli tisbaar su mbooloo ma tàkk dañuy julli ajjuma kon bu ñu waxee ne jumaa faw waruñoo génnal xakka yi léeg-léeg ngànt am lu tax duñ julli ajjuma waaye boobaa nag dañu mën a julli tisbaar loolu mel noonu la moom léeg-léeg ngànt am a julli ajjuma waaye léeg-léeg sàrt yi julli fa dara nekk

waaye nag sëriñ ne tiim nañu ñi ngi taxal suñu bépp kon nañeen ñoo moom de nañeen mi ñoom borom barab la buñ ca bëggee jariñ nañ ko tàgg wala boog bu leen naree lool te mënuñ ko mun nañ ko wax moom mu dagg car booba mbaa mu wëlbati ko ba du tiimati sëriñ sëñ Cheikh asaka mbokk yi war nañoo xam ne jaamu yàlla génn asaka du business kenn ci wax perte ak ñàkk la génn asaka perte na ak jaam bu jaamu yàlla dañoo sant jaam bi buy génn asaka bu fekkee day yaxal bu waxtu génn asaka jotee day xool li mu yor ci xaalis li mu yor ci ay bagage xaymaam la ñuy xool ndax dañoo bëgg xam alalam fu mu toll bagage bi nag li muy jar tey mooy xayma li muy jar tey nga xam ne boo ko doon jaayee doo loru yow ku ñëw ne la jaay ma nga sañ koo jaay ci loolu nga koy ndax mooy li nga am alal li nga am lañ la tey tey xool luñ ci asaka nga jënd loolu moo tax bàyyi xel du rek jënd woon naa ko nangam ndax xam nañ ne xayma day soppi léeg-léeg nga jënd ma ci nangam. ñu dox tuuti mu daanu ba ma tëdd wala mu yëg ko ci yow liñ lay xolloo mooy sa alal yow ñu tey jii luy sànq kon bagage bi tey jii luy xiimaam buñ ko doon jaay jaay moo xam ne du jaay ñàkk pexe loo ci loo ci ko doon jaay maanaam doo ko def ko jaay loolu lañ joxe su ko defee nga jënd bu dee lu lamb yi bu mu yàgg yàgg ci mësal bi dañuy wax ne alal ju lamb sa alal fépp yaa ko moom saa bu njëg ñëwee nga jaay ko at mu at mu jot da koy fay loolu de nag am na ci biir mbag njëg bi ñu wax ne bu ko lambee ay at mën nañu ko jàppee alal yi lex nga xam ne léegi doo dugg limaane saa bu jaree nga doon ko génne nag loolu am na ci ko waaye lii al mu'tamad ci njëg moom mooy alal ju lambu ak lii des ñoo yem saa bu asaka jotee xay ko génn ñu bàyyi xel ne ak jaamu yàlla la perte ma am ci bu fekkee ne daa am koo xam ne da doon xayma ci lan ko jënde woon ay ab te xamul loolu njuumte la yonent bi ay salaam na sama waxeet jéggal nañ leen seen njuumte ak luñ fàtte ak luñ leen gaax ñu def ko ci seen tabax su boobaa day jàpp ne njuumte la woon xamuñ ko woon yàlla jéggal nañ ko incha allah waaye daal ak jullit buy xayma alalam lay xam tey jii sa alal mu toll moo tax ñuy wax sax bor yi nga xam ne dañ la ko ameel te waxtu fay ko jot te nga am yaakaar dañ la ko fay loolu amu ci yàq yi waaye yaakaar naa ne dafa fay bor dañ koy xayma wala li nga moom la loolu moom mooy la ci war a seen soxla. kii moom nee bi dafa wax ak jurit bu xam daraja ji koor am fa yàlla. ba nag mu xool ko xam ne kii wóor baaxut ci moom bu baax sañ naa jëfandikoo digal nag laa dara wala dara waaye nag faaw mu dem ci docteur boo xam ne xam na luy koor fi ko yàlla teg ne nit ki gënul ci yow te fekk man baax na mën na ko du ko añi dara xammee na yooyu loolu mën na bàyyi xel ndax am na koo xam ne ay koor ak yu ñuru moom day jékki-jékki jàppale ne nit ki ñàkk lekk ñàkk naan baaxut ci moom fekk mën naa woor bu ko du ko añi dara waaye bu leeree ne ki ko wax xam na moo tax yu mel noonu docteur bu nekk ab jullit bu xàmmee lañ war a laaj wala seetee ba xam ne woor baaxul ci yow xamal ne baaxul ci nga dog ba ba wér mën a fay su wér di nga wéyee ko ba faaw nag woor wàcc na subaa dañuy sopp ci yow ngay lale bis bu seet nga jot ak soxna si wax ko dëgg yonent bi nee na al muslimuuna ala shurutihi ak jullit lu mu sàmmante mbokkum jullitam te lu mu lislaam bi tere da ko war a sàmm ginnaaw ba ngay bëgg soxna si da bàyyi seen mu jàng loolu ngeen jubóog boo xëttee sàkk ko nekk ne la may dem ba mu wëcc seen moo tax lu mel noonu ku ci dugg mën nga dugg ci ndax sàkk boo ko sàkkante moom da ko war a wéy sart boo ko sart tamit da koo réwél al muslimuuna ala shurutihim fii mu ne ci démb la waaye ay waajur ñoom bokkul ak seen diine mais su kilifa bu fekkee ne kilifa lislaam man ay bokkam amatul ci